tak sama toogaay tey fii man ma nekk Tivaouane xam commune bi lu ma dund xam seen coono xam seen problème parce que commune Tivaouane Peulh ñàgg Macky Sall amu leen seen fay da ngeen bëgg a Macky ba jeex depuis 2012 ba léegi yéen ngi ci Macky daw ngeen guddi daw ngeen bëccëg sunu leen taayu leen yépp yëpp nit war a taxawal nitam rek taxawal ngeen Macky Sall waaw mosuma leen yàlla def na nag yàlla moo moo tax mu jóg bu mu jógee nag mu xam seen poroblème xam seen coono mu dugg ci commune bi yëpp mu xam coono jigéen mu xam coono ak xale yi mu xam dëkk bi lu mu dund ak nakari lu ñu dund ak coono parce que dëkk bi amul dara dëkk bi dara amul amul ndox ndox problème ndox lañu am ba léegi ñu ngi root ci teeni boo demee fii ci àll bi ci àll bi ñoom ay robinet lañu yor boo demee fii bu Fuuta ku ne mu ngi yor am ci biir kër waaye fii ci Dakar sorowul dara ba léegi ci teen lañu naan loolu coono la amuñu tali benn tali lañu am oto boo jógee Kër Massar ba génn benn tali boobu moo am soo duggee ci dëkk bi amoo fu nga jaar commune bi yëpp foo dem dangay fekk foofu tali karu commune yëpp changé na ba des commune Tivaouane Peulh ñàkk bu ñu toogee nag duñu mer waaye du président de président yëpp lu mu def ci senegal mu ngi def yëpp lu yéenoo Sénégal tamit mu ngi def waaye ñun Tivaouane Peulh amuñu ku ñu jooy suñu problème amuñu jooy suñu problème loolu moo tax man ay Aïssata ma jóg taxaw parce que damaa jógoon taxaw liggéeyal président Macky Sall du dara nag dama xaa jóg taxaw liggéeyal ko cinq ans maa ngi koy liggéeyal dajale jigéen ñi jagale dajale ñu meroon dajale ñu geddoon dem opposa ñëpp man maa dem jël leen man ne ñëw leen ngeen jàppale ko ginnaaw soo gisee tey ma taxawuñu nekk sama ginnaaw ñi ñoo tax parce que ñoo ma doolal ñoo ma taxawal ñoo ma teg ci yoon bi man nag social rek laa mun ak jàppale leen ak téye leen ba président gis seen xam seen problème dem na nag léegi ba mairie ñëw élection mairie ñëw na mu xam sama jógul taxaw dara du baax président yow xamoo ma ci caaxaan kenn xamoo ci caaxaan man soo sama xesee ma taxaw rek taxaw naa lu ma gis nii man Aysatu sama jógul taxaw jàppale la ci commune bi yow président dangay ñàkk commune bi xool naa ba xool man damaa bëgg a jàppale jigéen ñi parce que man ko social laa dund nii jàppale jigéen jàppale askan bi gis naa nag su ma jógee jàppale askan bi ñoom tamit ñu ngi sama ginnaaw ma laaj mairie bi pour jàppale leen te jigéen dafa war a am gëddam ci senegal man nag Aïssata man Aïssata Moussa man maa taxaw tey jàppale Benno Bokk Yaakaar commune Tivaouane Peulh loolu yëpp nag dama bëgg nag nga teg mairie bi sama loxo mu jiital Benno Bokk Yaakaar